bi le grand combat bi dox ci diggante Sidi Diamaguène ak BMW waa lii lu mu doon Sidi Diamaguène BMW Sidi Diamaguène BMW BMW moom ndeysaan am na luñ koy jox même am na luñ jox galaaj yi bari xar fa ku fay bari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 mais am combat bi mujj fii la bëree digganteem ak Petit Baboy bi fu muy mujj BMW Petit Baboy la mujjee daan Sidi Diamaguène daw na jëli ko yegg fu sori doxay daan wala déet BM seen na ko dëru na ko Sidi Diamaguène BM BMW Sidi Diamaguène BM rocc na loxo bi nar da caxabal wala déet Sidi moytul caxabal fooru BM la moom la daane Petit Baboy Sidi jàmbakan BMW ndeysaan jàppante nañ dara xewagul sama xel ñaaw na caxabal wala déet zongala Sidi jàmbakan daanaan la daanaan la ci làmb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 ndaysaan mu nekk écurie Bada Dione ndaysaan Bada Dione nga ci tribune bi jàkkaarloog moom di ko xool ndaysaan mbay guy gee ngi noonu ci wet ga daan na ko daan na ko BMW daan na Adama Kaay Adama Kaay BMW daan na ko xool fa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 mais kii dañoo ñëw ci école mu def ñu comme doomam barki Seydina Mohamed mais maa ngi sot nii damay ñaan autorité yi jàppale ma waaw dañu jóge ba tëkk bu barki alxuraan du ma am sax oto yu leen kii la moom wax lépp xeexat boobu bi bu mu jóg wala buy jógee biir gi doon saa yu ñëwee nga tëru ko jàpp ko bu mu ñëwee dama ko tëru jàpp ko parce que yëkkati ba sama droit su ma yëkkati droit bi tey jii ma ko mën a jàpp mais li muy gaaw gaaw tëru na capté ko daw moom ko soog leen tàngiri tax mu ma yóbbu ko caako yi dóor ko taxawal mu jeex. mais lépp moom nga daanee petit ba boobu daanee waat ko si di jàmm gën mais kii lu mu wax daal moom mooy wax lépp.